ci nag li nga xam ne moom moo di ndimbal askan wi la association ma taxawal bëccëg gile ci wàllu faju te doo fay dara jagleel ko way néew doole yi suñu sikkos ndikoo si turu sëñ Cheikh Diop bootu ci gile ko kuréel. ñu gis ne kat dañoo toll ci jamono joo xam ni nit ñi xaw nañoo sonn tuuti. ndax ay jafe-jafe yoo xam ne réew mi traversé na ko bañ yegg si fii daanaka bari waa na ñoo xam ne ñi ngi tawat te jaaxle loolu fu ñu fajee ñu gis ne fi ñu gën a néewee doole te gën koo soxlaa mooy ak faj ndax ndimbal moom la ci jiitu mooy fexe ba nit ki faju loolee nag moo tax sëriñ bi jox ñu ndigal mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci biir mbooloo mi ñu ànd ngir taxawal bis bu mel nii. hôpitalu lëmm sax nga xam ne fukk ci ay spécialiste ak lu tolloog ñaar fukki généraliste lañu nag becc ci bileb ëtt ci banlieue bi ni ko docteur Mamadou Bassirou Sey waxee ci turu bileb association. en terme d' exploration lépp lu jëm si ay analyse médicale dañoo déplacé labo carrément di def analyse par des biologistes ak ak un boo xam ne moo koy validé waaye tey ñi fi nekk nga xam ay pathologie chirurgicale la ñu war am dañu leen a téye leen war la ànd ak ñoom ñu faju ci hôpital yi arax ma jël leen en charge complètement daanaka dañoo boo xamante ne dina permettre tey. bépp maat bu fi jaar ñu ay données yoo xamante ne dinañ la mën a suivre daanaka si manque d'adresse si wàllu ay accident jigéen ñi nga xam ne ñu ngi am doom yooyu yëpp daanaka moo tax ñu gën a insister nañ jël seen deret maye ko ay ñoo xam ne ñoo ko soxla. boo ko xayma junni ak juróomi téeméer ci ay way tawat saytu nañu leen te fayuñu dara ci bëccëg gile association Arahma ci ndigalu sëñ Cheikh Abdoulahi Bousso ne daañu ko wéyle saasu ne ngir jagleel ko way néew doole yi.